tey bésu altine 15 juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaje lim ci junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ñeenti test yi ñu def juróom ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñeent ay cas contact lañ fukk ak juróom ñeent jóge ci transmission communautaire ñu gis ci ñaar ci Parcelles Assainies ñaar ci Grand Yoff benn ci jamñaajo ñett ci fas Mbao ñaar ci Géejawaay benn ci Diamaguène Mbao benn ci Kër Mbay Fall ñaar ci yëmbal benn ci Richard Toll ak ñeent ci Touba juróom ñett fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu basu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tànn ñeenti malaat ñàkk nañ seen bakken ci dimanche 14 juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale ci sama baat mu ngi jaalee seeni njaboot ci bésu tey dalee ko ci cas njëkk ba Sénégal woññi na juróomi junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti cas yoo xam ne cas positif lañ ñetti junni ak ñeenti téeméer ñeent ñoo ci wër juróom ci seen bakken mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent ñoo xam ne suñu personnel de santé yi ñu ngi leen di traité ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dellu di woo askan wi di ñaax askan wi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne moom la ñu joxe